dalal ci suñu màkkaan ñun waa FRAPP euh, ay sénégalais yoo xam ne seen mbokk yi dañoo nekk kaso précisément kaso bu Kaolack waaye ndaje bi am solo ci ñun waa FRAPP ndaxte fan yi passé wax nañ ci situation kaso Kaolack waaye wax nañ tamit ci situation kaso bu Camp ñu ne woon kon tey occasion la benn ñu jox kàddu gi ay sénégalais yoo xam ne dañoo am ay mbokk yi nekk kaso Kaolack mais ñaareel bi ñun waa FRAPP ñu ñëwaat ci ay communiqué yoo xam ne def nañ ko ñaari semaine yii passé ñetti semaine yii passé lu jëm ci kaso camp pénal yi nga xam ne moo nekk fii suñu wet ak kaso bu Kaolack euh, waxtu yële passé waxtu yi passé am na ay journalistes ay organ de presse yu titré ne Guy Marius Sagna tëjlu na ñetti tàngana ci kaso bu Camp benn remarque bi may njëkk def mooy nañuy bàyyi di personnaliser benn nit rek woyof ni dunk ni man xaw naka laa mën a tëjluwee ñetti tàngana xanaa sax bu ñuy titre nañu ne xëy na le frappe parce que FRAPP mooy def ay communiqué FRAPP mooy def ay manifestation mais loolu amul problème loolu du lu ëpp solo bi li ëpp solo bi mooy ñun waa FRAPP mësuñu wax ñu tëj ñetti tànganaa yi nekk ci biir kaso bu camp li ñu wax mooy prisonnier kaso camp pénal sonn nañu lu tax ñu sonn mooy ba tey jii nii may wax ak yéen ci kaso camp pénal bii ñu ngi naan prisonnier yi mënuñu jot lekk yu jóge seen mbokk ndax lan ndax coronavirus ngeen foog ne dëgg la tey jii nii 9 mai xaw ma 10 mai 9 mai c'est ça. 9 mm-hmm. mai 2022 ñu naan ndax coronavirus kaso du dugg euh, lekk du dugg ci kaso bi alors que ñun ñu ngi dem tàncaloo stade Abdoulaye Wade wala beneen stade ñu ngi dem tàncaloo ci concert yi ñu ngi dem tàncaloo. ci nawetaan yi ñu ngi tàncaloo ci tataa yi ci njaganjaay yi donc ku ñu yépp wax ji mooy ñetti tàng naa yooyu bés bu nekk dañuy verser junni ci administration pénitentiaire bu camp muy fukk euh, muy quinze mille ñetti junni bés bu nekk tàng tànganaa bu nekk ñetti tànganaa yooyu dañuy verser junni muy ñetti junni boo ko multiplier par trente mu def quatre cent cinquante mille en tout cas quatre lu jege téeméeri junni cinq cent mille léegi nag ngir business boobu continuer gars yi tëj ne benn lekk bu fi dugg comme saa ñuy dem di lekk ci tànganaay yi yemuñu foofu ñu ne boutique bi nekk ci biir kaso camp bi kenn du fa jaay nen comme ça ba soxlawee nen nga dem jënd ko ci tànganaay bi ngeen fone dëkk la ngeen fa ne dëgg na ñun waa FRAPP yàgg nañ fi wax corona business waaye ñeneen moo taxoon ñu naan corona business waaye ndekete ci kaso yi dafa am corona business boo xam ne mu ngi lor jëlmaan yi mu ngi lor ñi caabi féete ginnaaw ñu ngi lor détenu yi ñu ne la benn ndax coronavirus doo jot lekk bu jógee sa waa kër sa kër ñaareel bi foog nga dem jëndi ci tànganaa bi loolu lañ def communiqué bi ñu defee communiqué bi nag. ëllëg sa ñu tëj ñetti yi tànganaay ñun ñu nañ tëj tànganaay de nañ leen ubbi ku am xaalis ci jéelmaan yi bëgg a jënd ci tànganaa bi nañ jënd ci tànganaa bi waaye ñi nga xam ne seen mbokk sori wuñu ca kaso ba te bés bu nekk ñu bëgg leen tibbal <clears throat> mais nañ leen bàyyi ñu tibbal leen ñi nga xam ne bëgg nañ dem jëndi nen wala leneen ci boutique bi nañ leen bàyyi ñu dem jëndi nen wala leneen fii laa génn kaso bu Cap Manuel wax leen waxu bàjjan yi mi nga xam ne waaw lépp dafa cheroon ci buti bi téléphone bi cher gën a cher li nekk ci biti waaye yemuñu woon ci loolu dañoo ñaanoon président Macky Sall ñaan ministre de la justice ñaan directeur de l'administration pénitentiaire DAP ne leen nañu seet seetantal li nekk ci kaso yi parce que ndegam lu mel noonu am na ci kaso Cap Manuel mun na am am na ci yeneen fanweer ak juróom-benn kaso yi nekk ci Sénégal Sénégal mu ngi am 37 prison fanweer ak juróom-ñaar ñu ne la nañu audité prison yëpp xool ndax li ma gisoon ci kaso Cap Manuel ñuy sàcc prisonniers yi ñuy tabax ay étage ci ndodd prisonniers yi di leen di fayloo unité téléphone bu gën a cher lu ñuy fay ci biti di leen di jaay ay marchandises yoo xam ne njëkki moo gën a cher li ñuy yaayee marchandise ca Salémata wala ca Kédougou wala ca Ranérou Ferlo loolu du dëgg du yoon nañu audité kaso yépp xool lu fa nekk lu jaarul yoon te muy noot di loraange ci prisonnier yi ñu dindi ko fa loolu la ñu waxoon pour defar ndaxte xëy na Macky Sall yàlla def na duggagul kaso waaye ñun ñii yàlla nattoo ñu dugg kaso gis fa loo xam ne du dëgg du yoon day salfaaña ak ak yelleefu nit bu ñu génnee suñu warugar mooy jàppale état du Sénégal ne lii am na biir kaso nañ ko jubbanti defe defoon nañ kon lu ñu war waaye ñu toog ay semaine toog ay weer ñu ne am na ñetti tànganaa yuy verser cinq mille muy quinze mille ñuy obligé prisonniers yi ñuy jënd foofu seen lekk du dugg du dëgg du yoon donc ñun tëj lu wuñu benn tànganaa li ñu wax mooy nañu bàyyi lekk prisonniers yi dugg biir kaso yi biir camp pénal prisonniers yi di lekk ndaxte relation bi diggante ki nekk biir prison ak njabootam famille am bi nekk ci biir dafa am solo ñi nekk ci biir dañoo soxla soutien affectif psychologique dañoo bëgg di sentir seen waa kër ci woo ci woo ci téléphone waaye tamit ci indi naa la gerte caaf indi naa la beñe indil naa la ndambe indi naa la ceeb nga xam ne sa famille bàyyiwu la seetaawu la lien boobu la ñu dagg te du dëgg du yoon ndax lan corona business ndax lan prisonnier business ndax lan jail business waaw di jënd ay oto di tabax ay di tabax ay kër di tabax ay étage ndax lan ci détenu yi dëgg la nag ñun ñoo fi ñun ñoo fi yàgg wax te suñu kàddu ba suñu waxu démb mooy suñu waxu tey ne nañu gestu agent pénitentiaire yi ndaxte ñoom itam sonn nañu agent pénitentiaire yi ñoom ñoo gën a sonn ci homme de tenue yi liñ leen di fay baaxul liñ leen di jox prime baaxul condition yi baaxul waaye nag dafa am ñenn ci ñoom pas ñëpp dañoo jàpp ne comme ñoom nekkuñu ci tali bi di feyee ko mille francs deux mille par oto ñoom ci prisonniers yi nañ ko war a jëlee te loolu du dëgg du yoon prisonnier boo xam ne ci biir prison bi xëyul gonduwul nga naan da nga koy jaay nangam da koy forcer mu jënd ci tàngara loolu dëgg du yoon loolu dafa amoon solo ñun waa FRAPP ñu leeral bu ñu jàkkaarloowee tey ak sénégalais wax ne dañoo ne camp pénal nañu bàyyi lekk prisonniers yi di dugg bu ñu forcer nit yi di jënd euh, euh, euh, ci maanaam ci tànganaa léegi nag bi ñu waxee loolu tëj nañ tànganaa bi ñun waxuñu kenn tëj tànganaa commencé waat nañ jaay nen ci boutique bi waaye prisonniers yi mënatuñu jënd par jour lu ëpp ñetti nen ndax rek pour koñe leen nee nañ leen mënu leen jënd pain sec ci boutique bi ndaxte comme dañoo tàmmoon di di defar nen bu ñu baxal wala omelette ba pare dugal si nen bi ñu ne leen léegi comme waa FRAPP siwal nañ ñu yàq nañ suñu business tëj nañ tànganaay yi waaye ñetti nen par jour maximum ngeen mun jënd yéen prisonnier camp euh, maanaam ci camp pénal du dëgg du yoon ñaareel bi dootu leen jënd pain sec mun ngeen jënd ñetti nen waaye yéenay xam nu ngeen koy nenee nañu bàyyi di koñe prisonnier yi nañu bàyyi di xoxatal prisonnier yi ñun sénégalais nañu bàyyi di wax ne prison mënul neex lan moo tax prison warul neex mais prison bokk na ci li tax ñu dugal la fa pour yar la mais bu fekkee dangaa ngaa bëgg a jubbanti jooyanti doomu aadama ba pare fi nga koy dugal pour jubbanti ko jooyanti ko mais nga koy def loo xam ne yow xam nga ne du dëgg du yoon moom mii nga koy def xam na ne du dëgg du yoon ba pare nga ne kooku danga nga koy jubbanti déedéet kooku dangay gën a bon loo xolam kooku da kay gën a yàq kooku da ngay tax xol bi tàng mais kooku da nga koy gën a yàq. kooku wanoo ko loo xam ne euh, misaal la royuwaay la bu fekkee da ngay dugal nit ci biir kaso mais da ko bugg a defar comme da ko bëgg a defar da koy xool loolu jekk da nga koy xool loolu rafet da nga koy xool loolu jub waaye doo ko dugal ci biir kaso da koy noot muy gis nootel mais kooku boo ko nootee fukki at juróomi at ñetti at xaw ma juróom benn weer mais bu génnee day jàpp ne lii mooy yoon kon bu mu jaaxal kenn ñenn ñi dugg kaso bu ñu génnaatee ñu gën a bon bi ñu fa duggee bu mu jaaxal kenn nit duggu kaso ndax affaire yu ñàkk fayda benn dank netetu wala ma benn laaj la sàcc ñu dugal ko kaso mu génn mu gën a bon nit dugg kaso ndax rek xëy na ndeysaan dafa amoon ay xarit mu tux yàmba jaayul c'est la première fois sax muy tux yàmba mu dugg kaso génnaat nekk jaaykatu yàmba bu mu jaaxal kenn ndax kaso yi day gën a yàq day yàq sax ndaxte am na ñuy dugg kaso ndeysaan defuñu dara ay innocent lañ woon mais ñu gis ñu boole leen ak ñoo xam ne xëy na dañoo def am expérience donc ñun loolu la ñu wax tëj lu tàng naa li ñu wax mooy ceeb bi na dugg sombi bi na dugg lekk yuy jóge ci këru jéelmaan yi prisonniers yi na dugg biir camp biir camp pénal bu ñu leen forcé ñuy jënd ci benn tànganaa boo xam ne ndeketewoo dafa am dañuy fay ku ci nekk cinq mille francs administration pénitentiaire xaalis boobu fu muy dugg tabax kër jënd oto du dëgg du yoon du dëgg du yoon loolu nooteel la loolu la ñu bëggoon leeral ba pare waxaat suñu revendication tey la ñuy gën a wax nañu ubbi prison yi pour seen ceeb seen añ seen reer seen ndékki yuy jóge ci waa ci seen kër dugg fa te ñu bàyyi di business ci kaw ndodd prisonnier yi ñaareel bi mooy am na weer ci ginnaaw ay ayu bés ci ginnaaw ñun waa FRAPP defoon nañ benn communiqué pour wax ne benn weer ci ginnaaw trois heures du matin quatre du matin dañoo jël ci ci kaso camp bi ay prisonniers trois heures du matin quatre du matin dugal leen ci oto yóbbu leen kaso bu Kaolack te ñoom de seen mbokk yëpp ñu ngi Dakar. mais état du Sénégal war na xoolaat lu muy def waaw man boo ma jàppee man Guy Marius Sagna Macky Sall jàpp ma yóbbu ma kaso bu Matam waaw amul problème ma dem kaso bu Matam même bu fekkee aw ma fu mbokk mais nuñ may tibbalee añ wala ndékki nuñ may rendre visite naka lañ may ñëw seet si kaso donc yow même nit ki boo koy tëj pour que xëy na mu xalaat pour que mu dellusi mais tëj ko ci condition yoo xam ne mais du gën a bon du gën a yàqu kaso c'est pas pour toroxal déedéet c'est pour éduquer rééduquer jubbanti jooyanti jàppale ngir boo génnee mais nga jàpp nit ki mbokkam yëpp ñu ngi biir dakaar nga dem yóbbu ko Ranérou Ferlo wala nga dem yóbbu ko mais kaso bu nekk Kédougou loolu pour lan c'est quoi le projet loolu amul sens après bu génnee mu nekk gan ak ay mbokkam muy benn ñu ne déet ñu yëg ne euh, kaso Kaolack bi kaasu suukar cent vingt cinq lañ fay jaayee kaasu suukar fukki simili fukk ak ñaar soixante franc la mais lañ koy jaayee téléphone dañ koy jaayee kaso Kaolack loolu mooy loolu mooy loolu mooy prison business bi ma doon wax loolu mooy prison business bi ma doon wax di jëfandikoo prisonniers yi pour di ci jënd oto di ci tabax kër waaw c'est vrai que salaire yi moom baaxul waaw ñu ngi koy waxaat président Macky Sall na gëstuwaat agent pénitentiaire yi sonn nañu damm nañu taay nañu fay ñu leen lu doy waaw dañuy génn kaso war a ñibbi seen kër ñuy def autostop sinon waaw mooy loolu waaye nag ñenn ci ñoom parce que du ñëpp ñoo koy def li ñuy def du yoon directeuru kaso bu maanaam bu li muy def ñii du dëgg du yoon directeuru kaso bu bu camp pénal li muy def ci tàngaraay yeeg yooyu waaw du dëgg du yoon di jéem a koñe prisonniers yi du dëgg du yoon kaso Kaolack benn robinet ndox moo fa am néeg am na benn toilette mais amul ndox amul ndox ci biir néeg yi benn robinet moo fa am minimum lu ëpp deux cent cinquante prisonniers ñu ngi ci biir Kaolack ñu ngi ci biir kaso Kaolack benn robinet pour ñoom ñëpp gis ngeen Kaolack bu mu tàngee boo amoon téeméeri robinet sax nga koy ubbi te doo ko tëj gis ngeen tàngooru Kaolack ñu dugal la biir kaso amul ndox benn robinet pour plus de deux cent cinquante prisonniers ñu naan déet euh, mais toiture mais toiture cellules yi zinc la zinc la da ngay nekk biir Kaolack nga am kër boo xam ne euh, dër la d'accord mu tàng xool leen bu fekkee zinc la. xool leen bu fekkee zinc la ba pare ñu ne ci biir néeg yi amul lu ñu ne donc ñun loolu la ñu wax ne du dëgg du yoon ñi fa nekk dañ leen nangu ci seeni mbokk yi nekk ndakaar amuñu benn mbokk Kaolack kon ku leen di seeti nga war a fay xaw ma trois mille cinq cent bu dee sept place nga jël sept mille francs aller retour ah? maanaam minimum bi nga fay dix mille francs aller retour waaw fii ba Kaolack deux cent kilomètres pour seeti sa mbokk xanaa loolu mooy sa mbokk mi ñëw benn yoon par six mois wala benn yoon par trois loolu pour lan soxor boobu pour lan ñu naan déet kaso bi moom prisonniers yi sonn nañu léegi prisonniers yuy naxarlu lu mel nii ah di naxarlu kaasu suukar cent vingt cinq ñu ne leen ràpp dugg leen ci cellule ndaxte waxoon naa leen ko fi biir kaso dafa am ay cellule waxuma dafa am cellule pour ñëpp mais boo defee loo xam ne nee nañ ñu dëgg du yoon ñu dugal ci cellule prison bi def la en cellule d'isolement ñu simmi la yenn saa ñu simmi la taatu nen sotti la ndox dóor la saaga la kaso Kaolack ñetti fan ñeenti fan juróomi fan a ngi am na ñoo xam ne dañ leen dugal cellule d'isolement ñu ngi feebar ndax lan di naxarlu liñ leen jëlee fii Dakar yóbbu leen Kaolack di naxarlu dix secondes de téléphone soixante francs di naxarlu kaasu suukar cent vingt cinq di naxarlu benn robinet pour lu ëpp deux cent cinquante prisonniers di naxarlu ba su korité ñu tibbal leen somme waaw mais somme bi lañ leen toggal ba su loolu ba kañ ñun nag li ñu ragal ginnaaw dañoo jàpp ne doomu aadama ak ku mu munti doon dafa am àq ak yelleef dafa am ay sañ-sañ dafa am ay droit te dañ ko war a respecté même bu ñu ko condamné dañ ko war a respecté kii rey nit sax mu leen àddina bi yëpp ne diw moo rey Guy Marius Sagna ñu àtte ko daan ko preuve yépp wane ne moom sax mu nangu ne moom moo rey Guy Marius Sagna ñu tëj ko dafa am droit man ku ma rey buñ ko tëjee kaso nañ ko nañu respecté àqam ak yelleefam ñun sénégalais nañu bàyyi di wax naan non non non non ñu bon lañu nañ leen luñ leen def baax la warul neex loolu loolu yaa ngi koy wax tant sa mbokk dugg fa te gis naa ñu ñàkk fayda ñoo xam ne seen mbokk mën a fa ñuy wax loolu loolu bañ sa mbokk ak bañ sa askan mënul weesu loolu nga am mbokk kaso nga naan ay kaso warul mekki mekki warul neex ah ba ñuy jaay kaasu suukar cent vingt cinq ñàkk fayda ba ci lan ñuy obligé ñu naan dix secondes de téléphone soixante francs nga naan kaso warul neex ñàkk fayda mënul weesu loolu ñu am seen mbokk kaso ñu leen di toroxal nii naan noonu la baax na da ngeen ñàkk fayda da ngeen soxor ci doomu aadama du yoon ñeneen nag ñiy wax la même chose seen mbokk moo musul dugg kaso ñoom ñoo musul dugg kaso di wax naan ñoom ñoo def lu ñu yóbbee foofu ñu fàttaliku ne maam Limaamu Laay tëj nañ ko kaso bu gore fàttaliku ne maam Bamba tëj nañ ko nañu fàttaliku ne Aline Sitoé Diatta tëj nañ ko nañu fàttaliku ne Omar Blondin Diop mi nga xam ne le 11 la fàttaliku bu mu deewee ca kaso bu gore tëj nañ ko nañu fàttaliku ne maam Ablaye Wade tëj nañ ko nañu fàttaliku ne Amath soxo tëj nañ ko nañu fàttaliku ne Landing Savané tëj nañ ko kon am na yoo xam ne war nañ ko xoolaat te fekk suñu prison yi mu ngi nii Mandela tëj nañ ko Nelson Mandela donc lii lañu waxoon ne suñu tiitaange mooy ragal nañ ne bés dina ñëw prison yi dina tàkkaat ndaxte xar sax muus sax xaj sax boo koy ginaar sax boo koy puus di ko puus di ko puus di ko puus di ko puus ba mu sës ginaar sax day ñëw jàkkaarlook yow cuuj sax boo koy puus di ko puus mu jàkkaarlook yow daaw ci événement mars yi bi dëkk bi tàkkee am na kaso yoo xam ne dafa tàkkoon rëbës ñaata yoon la tax ba nit it agent pénitentiaire mais ñu toll ci kaw bi tiire ay grenades lacrymogènes ak ay bal lu ko indi mais cuuc sax boo koy puus di ko puus mais mu jàkkaarloog yow jaay la bakkanam donc ñun suñu tiitaange suñu wax ju bëri bi yëpp ci kaso yi te duñu mës a noppee wax ci kaso yi bii boo nag nit yi nañu wax lu leen neex waa APR nañu wax lu leen neex du ñu noppee wax ci kaso yi ndaxte lii du dëgg du yoon donc lii la ñu wax ne bu ñu moytuwul dëkk bi dina tàkk te fu muy tàkkee ci kaso yi lay jóge ndaxte ñi fa nekk ay doomu aadama lañu dañoo am xel dañoo jàng dañoo xam seen droit bu ñu sonnee xol bu feesee tuur te xol bu feesee bu tuuroowee musiba lay jur bu ñu bañee nag mutinerie mutinerie am ci kaso yi nañu respecté droit yi ñun loolu la ñuy bañal Sénégal bakkanu doomu aadama rot ci biir kaso yi ndax la nit yi dañoo fipp donc ñu ngi waxaat nañu audité kaso yi